رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى قطعوا هم النيام تصلوا عن بالهنمين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 أين أعيان خلق المتقدمين وديائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتع على دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترى بها عنا وعن والدنا وزوجنا وذرياتنا من يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جباه إنما كن منهم فلي بحب إنس وجاه وبجاه وبإذن طيب لنا شرعيا واختم لنا بالخير يا من لعلنا رب سواك فليتوربي بمتحط شفي في المنطق البدي أبوي بيا مملي فليتوربي بمتحط شفي بمنطق البدي أبوي بيا مملي شار المولدي شار الأولى والسددي شار النبي أحمدي شهر ربيع الأول ربي بمرأة شفيع المتقل أبدي الربيع المحمدية بالربيع إذ كان كالربيع الأرض والشفيع بكل خاتم معدني يا ربي بمرأة شفيع المتقل أبدي شار الفرح شار ذهاب الترح وفخرنا والمرح شار النبي الأفضل شريعة الأنبياء بمنافع والشفيع بمكتب الأبدي الرجال وهربني الفرح والسرور شر به سر الدهور موشح غير الشهور متوج مكلل شريعة ولادي على انتشار الفاتح إغلاق كون فاته من قص بالفواته وحاز خاتم المنن فبيعت ربي بملأتي شفيع بمنطق الأبدي أطبيع وحقني على انتشار قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول ومن له الحسنى فقط عليه جبريل أباد بكل نور معتلي سحر ونور أفقه الجليل بكل ما ظهر من يعي الفكر في طرف البصر إلى مقام 对，我也是这样。 الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل تحت أكوابيا بمنعتي عجبيا نلتقي أفضل الرجال في أفضل الليالي في البلد المفضل يا بمنعتي عجبيا

رحمتي العلي فدتي ليالي في زينة المعالي كالجوهر المفصل الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي والقدري بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر لسنا مع الرفيق الافضل لمن وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نرتشي غويا بجاه عبدك العلي وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام ما دام كونه إله بن أبد لأزلي تبعت ربي بمن هدي الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأزل وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكملين كل عظيمها واصمح لقارئها وللذي حضر وامهم بخفي لطفي وكفيهم نوائب الدار ما افاتي الكدرة أجب دعاءهم واجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصحابه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقاء الخاتم والخاتم لما سبقنا صلق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على عالي قدر المقدار العظيم ñu ngi wër di tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppe bu mag bi soppe yàlla bu mag bi téere bi ñuy wax Nuurul Basar gannaaw boo xamee ne tagg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàddaay bi mu gàddaaye woon Makka dem Madina loolu moo doon waxtaane ci sa daaw bi shawaqat nii amaakinun ba baytee jeex loolu fàttali la ci dar sa daaw bi rek mbëggeelu bàyyi ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul dayoo moo tax fépp fu mu taggee yonentu bi si rek dana ko jeexalee waaw ay ñaan ak wane cofeelam ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam de bi nga xamee ne yàlla yónni yonentu bi mu jugee ci yàlla ñu tëw wuyu mu jot ndigal ci boromam gàddaay dem Madina gàddaay ñu gàddaay bàyyi daan na wax ne du ragal du tiit du bokkat de oo na leen ci yàlla ci ndigalu yàlla ñu bañ su may ñu néew ci ñoom mu gàddaay dem feneen foo xam ne waaw fa la gën a yaakaaree ni wala yàlla dem Madina rek mi nga xam ne ne na ñëw Madina ñu di ko tatagal ba ba muy agsi Madina mu rëdd di jumaam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam foofu la taxawalee dawla islaamiya la foofu la def fukki at gannaaw mu defee Makka fukki at ak ñett muy ñaar fukki nii waaw ak ñett yoo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa nekk na ko ci ooteem jëm ci yàlla de am na ay kawteef nag yoo xam ne feeg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa boobu moom la bàyyi tag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mu ne sadaqallahu albadra minhu bi ayatin fa faadat midral xasa wa rimaari de baaduha ma tadaafarat qablu fi rusuli fa kullun min ka fii li xattaari sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nga tagg yonentu sallallahu alayhi ci sallam ci mujizaat yooyu nga xam ne yàlla jagleel na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa mu feeñ ci loxoom de mu ne sadaqa dëggal na laaw yàlla albadra weer wi kooku mu ngi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dëggal na yonentoom bi nga xam ne nii weer la de mooy weeru weer wi de ndax yaaram dañoo baaxoo jigéen ju taaru lool ci jëmmi jamono moom la ñuy tuddee weer de wéru mat badrul kamal dafa mat tole ci fukki fan ak ñett ñent jëm juroom képp ku ne ci àddina na nga dëkkee ci yaa wàllu àll da nga xam ne weeru waa waxutoo day taar rek ñu amul courant daan taal ñoo gën a xam loolu de xataa ñu am courant sax waaw jant bi matee boo génn bu wéru bi matee da nga gis taaroo de taaroo taaroo xatu maama de moo ko gën a taarutu moom moo koy tëbb de ba tax na lu mat rek danañ ko mel weer kon bu dee jigéen ju taaru dañ koy mel borom xam-xam bu mat dañ koy mel lay weer rawatina moom mi nga xam ne mooy sang sa wii de moo tax bàyyi jëfandikoo badar boobu de aayaat nag mooy ay kawteel moo jëm mu aayatin moom la ko yàlla dimbalee bàyyi mu ne aaya yi ko yàlla dafa dafa bëree bëri ba dafa bëbb ba mel na faydu de dafa bëbb bëri ba kenn mënta compter kawtee fi nga xam ne feeñ na ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waaw bàyyi mel ne ko ni ki pepp suuf mu bëree ak beeñ kenn mënu ko lim du buur du baadaloo du doomu aadama du nit du jinne kenn xamul suuf nu toll ku ma yàlla mu ne niñ bëree noonu la kaawtee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëree wax na dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon na ko téeméeri junne ak ñaar fukki junne ñeenti yonent yoo xam ne kenn ku nekk wér na ci saaba yi ne gis nga kaawtee loo xam ne sa morom gisu ko de waaw dañ ca nettali ci téere yi moo gën a néew ci li am de sallallahu wa sallam saaba yi wax nañ ne keroog fatu makkata wala xajatul widaay laay bëgg a wax keroog yonent bi taxaw na di waare jëm ci ñoom di wax di wax seede di seedaloo yàlla di seedaloo jaamam ndax jotal naa ñu ne waaw jotal nga mu ne yow yàlla seedal waaw ne man jotal naa sa jaam yi ne nañ jotal naa de keroog saaba yi nett na ñenn ci ñoom ne lépp lu xaloo am ci àddina gannaaw yonent sallallahu alayhi rek te lu toll ñett téeméeri góor war cee bokk rek ci mbooloo ci àddina bu nar am rek yàlla def na yonent bi tudd na ko keroog wax na ko koy jiite waaw wax na ndax mbooloo moomu mbooloo mu jub la mu baax la wala mbooloo mu réer la rek nëng la rek ku fàtte rek yaa fàtte fi saaba yi wala ku xam yaa xam waaye loolu moom mboolem saaba yi saaba yi seede woon nañ loolu de sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla daf koo yebal ubbil ko xam xam la wali na wala xëy na dolli ko ci leneen loo xam ne nag moog yàlla moo jag moo ko jagoo de mooy lu mu xadar de kenn xam ko ku muy moom de du malaaka du junne du du keneen de waxi noppi de sallallahu alayhi wa sallam ba tax na lépp lu xeet yi war a jëriñoo rek moom waare na wa maa ala rasuli illa al jot na woote yàlla bi waaye def na ay tanabbuwaat ak ay tëkkahunaat waaw ak ay bicharaat yoo xam ne waxal na ko xeetam de sallallahu alayhi wa sallam de <coughs> yenn ci kaawteef yooyu nag yonent yi bëggale woon nañ ko am na ci kaawteef yi yonent bi def sallallahu alayhi yoo xam ne nii yonent yi defoon nañ ko yàlla terale ko de am na ci yoo xam ne nag moom moom rek moo ko jagoo sallallahu alayhi wa sallam yàlla jagleel ko de ndax ci barkeem la yàlla doon tëbee mboolem yonent yi sallallahu alayhi wa de waaw suma lama wafaata daafat ay ama al loola waxlul fisaale de loolu lañ ko bëgg ne ñoom yonent yëpp bu ci mujj ci téere yu yàccoon ci yonent yàlla isa alayhi salaam wax ne mu bashiran bi rasulin يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ما مبين ده ما ما نين دي بيغال ci yonent boo xam ne sama ganaam ahmadu lay tudd waaw bi mu ñëwee waaw yahudi yi ñoom naka jekk waaw lu bokk ci ñoom luñ moomul rek danañ ko añaane ko moom danañ ko weddi danañ ko xeex de suñ ko mënee danañ ko lor yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag moo ko sàmmal mi nga xam ne bi na gi fekk ñoom ñu nga woon madina gàddaayoon fa ndax dañoo jàngoon ci téere yu njëkk yi ne yonent bi nga xam ne mooy yonentu mujj ak jamono dana feeñ te bu feeñee dana gàddaay te bu gàddaayee madina lay ñëw de sallallahu alayhi wasallam ñu toog di ko fuglu waaye fuglu yi nga ko doon fuglu yépp dañoo njortoon ne ci ñoom lay feeñee de bi nga xamee ne nag yàlla feeñal na nga neen ci ko soob rek fadrullah yuti ñu ne kan la ñu ne ci Quraysh la bokk kañaan jàpp leen ñu ne nu tudd ñu ne Muhammad ñu ne ah kii du moom ñu am fuñ dëgg nag bëgg nax ñeneen yi ne du moom ndax Isaa de lam leen waxoon mooy Ahmed la waaye daal kii moom Muhammad la du moom de ñu weddi de yoon saa sama dégg ko ne ma ko man maay Muhammad ci àddina loolu lañ may wooyee waaye ci àllaaxira wala boog ci asamaan laa bëgg wax ñuñu asamaan ñoo ma yowee dégg de dëgg la man maay mohammed waaye man maay ahmed man maay hamidu man maay mahmud man maay man maay man maay mamunun de sallallahu alayhi moo tax bàyyi wax ne yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamee nag yàlla indi na ko kawte bi yooyu wax ji matale na ñooñ kawe ak ñooñu réer de mu ne dafa leer nàññi ba mel ni jant njolloor de mu ne misla shamsin ruddat bu ay da xurubin waxa maamin xat kaana za idraalin de boole na ci bayti bi ñaari kawteef yoo xam ne ci moo gisaatu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ne kawteef yi ma leen di wax ci baabu zikru baadu moo gisaat yi sallallahu alayhi wa sallam misla shamsin ruddat misaalam jant bi nga xam ne wurdat delloo fe na ko guaida da wuru bi yaa gannaaw ak soom loolu mooy lan loolu mooy bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa tëdd waaw dina nelaw sabe yi ñamun koo na naa ko def ko wan te lu gis rek la alquran bi wàcc la wala lu di bire fekk boobu sëy naa liyu yonent saa sama daf mu dem dox daal di ñëw bi mu fekk jant bi di waaw sore sore rek mu ne yonent bi man da jullee uma woon te yaa ma woon yonent bi gëstu weer wi ne ko ee eh, yow weer weer ne ko wi naa la yow sang way njëkkal bi mujj mu ne ko dellul waaw gannaaw ba ci muxtaaram tàkkusaan ndax jaamam yàlla bi nekkoon gisama ndigal mu yàlla yóbbu ne bii taalibi mu mën a julli tàkkusaan ne ndax maa ko yónni woon de ñëpp di janoo weer wi mu ne bu jant bi laa yow di de di wen di dellu di dëri di dellu ba dellu dellu baag si ci waxtu muy julli tàkkusaan sidna di jóg kabar julli tàkkusaan mu jullee ba salmal yonent ko nappi nga pare nga mu ne ko waaw mu ne yow jant bi ci ndigalul yàlla dellu fa nga nekkoon de jant bi di daw di daw di daw ñëpp di ñanam moom mel ni tayu waaw si fi nekkoon de waaw mu daal di mu daal di soode sallallahu alayhi wa sallam loolu ci kawte bi nga xam ne yalla jagleel nako yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam am ay seeda yo xamne nonu yalla yi sax seed nañ lo de sakay yonent yi sakay malaaka yi sakkaa yàlla mi nga xam ne mooy xayru shaahidina de qad kana za izlali mo jaa moy lan bokku na ci kawte bi nga xamne baye ngoy tagge sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy nir nir bo xamne ni dafa keru won ñeelende lolu bokku na ci limuy muy mooy bi nga xamee ne yontu sallallahu alayhi wa sallam saaba yi nekkoon nañ ci bekkoor ñoom waa Medina yontu taxaw di julli ajuma bi muy julli ci xutba waa ci mu mimbaram benn laaraabi yu taxaw ne ko yow sang bu tedd bi yow soppe yàlla bu màgg bi yow yonent yàlla xiif nañ mar nañ rafle nañ bekkoor nañ jur gi amatuñ luñ lekk amatuñu luñ naan ngir bekkoor mu jaayoo yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla mo suñoo taxee di sa ñaan yàlla naan la ñu wax de yonentu sallallahu alayhi wa sallam yéeg ne ma ba nga xam ne yaa ngi ko weer gaawal nga weeri ko sinon taw bi dana ko tooyal de daanelul rek sallallahu alayhi wa sallam xanaa dafa téen rek xool asamaan rek yàlla wàccee taw bi de maa ngi koy nettali ci gàmmu naan tatatatatatas taw bi di wàcc di sotti di sotti di sotti waaw dare ko ci waaw ajjuma ba ajjuma delsi mais dina fees dell ak ndox ba nga xam ne lu ëpp tuuru rek naa ko def nag dama dama kenn mu bëgg bu tàngee mun laa tàng bu seddee mu ne laa de naa ko def nag ba delsee laaraabi bi delseyaat bàyyi mu ne ñu ne wala beneen laaraabi yu ci beneen solo riwaaya neew yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanon nañ ndox waye dal ñi ngi bëgga dé dee ndox maa ngi ñuy lor de jigéen ñi mënu ñoo dem marché mënu ñoo def dara yoon yaa ngi tooy dañuy bëgg julli sax duñ mëna julli dé waaw ñu bari duñ mëna ñëw ci juma ji ngir taw bi ñaanal suñu borom mu teggil ñu ndox mi dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daal di ñaan nga summa ilmul xuyubi fal xaybu baadin fal yaada lidbaaru kal iqbaali sallallahu alayhi wa de bokk na ci kawteef yi nga xam ne moom la bàyyi di tagg ci bunt bi mooy ilmul xay bi yonent bi sallallahu alayhi yàlla xamaloon na ko xay bu de daf daan wax ay mbir yoo xam ne yu ñëwagul la lit baaroog baalu loo xam ne nii lu weesu la ak loo xam ne lu ñëwagul la de te nu ko waxee sallallahu alayhi waaw noonu lay amee de daa fekk fajar jege na rek moo tax duñ mën a sori ci kissa yu bëri de sallallahu alayhi de <clears throat> ba tey moolaana cheikh ibrahim radiallahu anhu ñas mi ngi tàggati yoon saa su mu ne bokk na ci kawte bi yooyu summa axyaawul mawtaaminu doaaw wa alay taslimu baadul jibaali minu kafun xartaalama safa ramada wa am yaa kula daayina daalin de yonent bi sallallahu alayhi summa axyaawul mawtaa topp dekkal ku dee de yonent sallallahu alayhi wa sallam dee na mu dekkal ko du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon sallallahu alayhi wa sallam dama bokk ci kawte bi de bokk na minu ay dan ci ñaan yooyu ak kawte bi yooyu yonent bi sallallahu alayhi daan feeñal ci ci yi mooy gisaati mooy ñaan de waaw mooy duwaaw de bu bu wootee dafa yoo kéwén mu wuy si ko dafa yoo doj mu ñëw wuy si ko sallallahu alayhi wa dafa yoo garab garab yi juutu li suuf féetee kaw li féete woon kaw féete suuf di dëri dëri di naan salaamaaleyka ya rasulallah labbayka ya rasulallah xeer yi naan ko salaamaaleyka ya rasulallah labbayka ya rasulallah tilli yi naan ko salaamaaleyka ya rasulallah labbayka ya rasulallah ca xisa yoo xam ne xisa tilli bi ñu bëri ñuy dégg xisa yonent bi sallallahu si siira wala ñuy dégg lu bàyyi waaw xam nañ ko de waaw ak yi ni mel de loolu de bokk na ci kawteef yi nga xam ne ci kawteef yi bàyyi taggee yonent la sallallahu alayhi wa sallam de minum ko foon xartaalama safar ramadan bëri na waaw bokk na ci kawtef yooyu mooy tënk de bëri na kuy wanant yonent sallallahu alayhi wa sallam bu la raayee rek nga wanant bëri na ko yore feebaru baras bu la raayee rek nga wér bëri na koo xam ne nii yaa ngi yore yeneen jàngoro yu ñu xam ak yu ñu xamul bu lay tiimale loxom bi rek laata mu lay laal rek waaw nga wér sallallahu alayhi wa de ci wàllu laal ku koo xam ne da nga yore be yi bët wala nga waa wanante ñu nekk de ci benn xisa xisa yi ci nekk bari na waaye si xisa yi Adiyu ibn Abi Taalib ci tënk rek bi nga xamee ne waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne joxe na raaya ji ku mu ko jox rek boo demee ñu dàq xare yàlla bi de mu jox ko ñu bari ñu leen di gañee mu daal di dogu ci yàlla nag ne wallaay bu subaa ëllëg dinaa jox raaya bi koo xam ne nii sopp na yàlla yàlla sopp na ko de saaba yëpp mébét pour nekk kooku yàlla sopp yi moomu sopp yàlla de ndax lu baax kenn bañu ko dañ koy rëj rëj loo de di ci këccoo de sidna Omar mën a musuma mébét pal waaye guddi googu keroog mébét naa palu ngir li yonente yàlla wax ne sallallahu alayhi képp koo xam ne nii bu subaa daal dinaa jox euh, raaya ji koo xam ne nii laa bëgg a wax sopp na yàlla yàlla sopp na ko de ñu xëy rek ñépp daje ku ne foog ne yow la di yow mi bët ko yonent gestu ne ana Aliyu ibn Abi Taalib ne eh, Aliyu dafa feebar wanant ba wanant boo xam ne ëpp naa woo da yonent ne damay noo ko mu ñëw mu ñëw rek toog ak feebaram ki wanantoom mënta sax si xool kenn ngir bët yu néew ak wanant ndox muy tuuru de waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam jël loxoom bu tedd bi rek raay ko ci karxanam bi mu mel nii waaw dara jotu ko keroog laa Aliyu gëj a wanant ba ba ni ñu yem foofu loolu kawteef la ci kawteef yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw def na ko ci loxom bu tedd boobu nga xam ne daf koy laal nit rek waaw mu daal di wér de sallallahu alayhi wa sallam ci saa si de bokk na ci ñi daan wànnantu ko Maalik ibn Abi Taalib de waa am ya wakula daayin odaalin de bëri na ñoo xam ne dañoo gémme dañoo gumba woon ci jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam mu laal leen loxom bi rek ñu daal di wér de sallallahu alayhi wa sallam daal di xool de bokk na ca benn saaba boo xam ne nii dafa demoon xare waaw ñu ñu ñu ñu daal di luq bëtam bi de yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw mu ne ko yow gis nga gis nga gis nga waaw ñu la ko bàyyi waxee luq nañ sama bët bi de yonent ne ko boo bëggee ma jox la bët fii ci àddina boo bëggee ma jox la nga muñ ma jox la bët ci àllaaxira de waaw yàlla may la nga dugg aljaana de mu ne ko bëtam aljaana baax na lool waaye daal damaa jëlëf seet waaw te bëgguma dem ci moom ak melokaan wi de yonent bi ree reeyam bu tedd bi mu muñ daal di jël bët ba dellu ko ci waaw xara bët kanam ba rek ba bët bi na buqee dellu kun fay kun dem men dara mosu laal de saaba boobu nee na diiram lu mu dund te dund na ay ati ati at xanaa bët bi waddu mooy wanant waaye bët bi yonent bi delloo woon dund na ba dee mësta wanant mësta métti mësta feebar mësta ñàkk a gis de sallallahu alayhi wa sallam kooku moo jër a bëgg moo jër a wóor moo jër a gëm de wa kulu daayin wa daalin ak bépp jàngoro boo xam ne da nga dafa tëdde boo xam ne docteur yi ñooñ pénkoog ñooñ xarfu yëpp loolu dafay am ci xeeti feebar yi kii man feebar naa wala sama njaboot feebar na wala sama mbokk feebar na fu ne yóbbu naa ko ci docteur ci yaw dina mën te de waaw mooy daawlu daal bëri naa ay daawlu daal yoo xam ne nii ci jamono sallallahu alayhi wa sallam bu agsee jonontu bi rek mu réglé ko ci saasi sallallahu alayhi wa sallam walxasa sabahat ke nabi maayin saara mune wal hasa ak suuf so xamne wala pepp suuf yo xamne ne nga sabaxal dañuy sabaxal yalla hasa moy beñ lolu moy lan nek nañ ci xare yéeféer yi songu jullit ñi wa bëgg leena a ëpp leen mbolo ëpp leen lim ëpp leen alal ëpp leen yobbal ëpp leen ngànnaay de bet leen tekki de waaw ñu jaxle ñëw ñoom saaba yi ne ah ñi de bett nañu song nañu yonent sallallahu alayhi wasallam mu jaaw lu ñuy def yonent sallallahu alayhi wasallam daal di yàlla daal di tubb suuf beñ bi mooy xasaa daal di ci jàng lu soob yàlla solo katub hadis hadis bi nee na xamut lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng de sallallahu alayhi wasallam daal di koy tëfli gémminam gu tedd googu daal di koy sànni noonu ne ne shaahatil wujuuti wujuh shaahatil wujuh shaahatil wujuh ñetti yoon bàyyi mu ne farru wallaay bi mu leen sànnee saan woowu li ñu wax ci jamono ñun bombe atomique wallaay mat na ko lu weesu loolu de ci ay lim de ñoom ñëpp ñu daal di daw tasaaroo waaw farlu wallaay ñoom ñëpp ñu daal daw de ñii dee ñii sëlmaxa waaw ñii waaw da nga dal leen ay feebar ci tànge bañ jaxasoo ñii daanu saaba yi rey leen waaw keroog saaba yi gañee noonu yooyu de ci xare boobu de ba tey boobu mooy saan boobu mu saanoon de mooy wama ramayta is ramayta walakin laa rama waaye bi ma bëggoon indi tigi mooy bi nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam jël na waaw beñ bi teg ko ci loxoom mu sàbbaal bàyyi mu ne loolu kaawte fa ndax la waaye mu def lu gën a yéemeeti mu teg ko ci loxo Babacar mu sàbbaal ba tey benn xisa bi la mu jël ko teg ko ci loxo Omar ibn Khattab mu sàbbaal mu jëlaat ko tegaat ko ci loxo mu sallallahu alayhi mu sàbbaal xam nga foofu wane na kaawteef suuf suy sàbbaal ñëpp di dégg ci loxo yonantu loolu kéemaan la de waaye ku ne xam ne ne jëmu yonantu bokkut ak beneen jëmu de waaye mu jox ko ndigal mu sàbbaal ci loxo Babacar Siddiq ak loxo Omar ibn Khattab mu delloor ko ci loxo mu sàbbaal mu jël ko sànni ko noonu ne leen chaatul wuju moo tax bàyyi wax fii ne waa wal hasa de ba tey bokk na ci kaawtee fi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mujizaat yi mu jagoo ka nabil maa indi kii ball ak ndox de yonantu bi dañoo ne ci xare bi mu métti lool saaba yi ñëw jooylu yontu yootu yoon salaasama ne yoonu yonantu suñ nganaay néew na waaye suñ yóbbale ngi jeex amatuñ lu bari luñ lekk amatuñ sax luñ naan dem nañ ba nga xam sa saaba yi fi ne lu naan mooy gëlëm yi la ñuy loj de waaw gëlëm dafay denc ndox waaw moom la ñuy jox di ko paasande bu naan naanee jox moromam mu guux naan loolu nekkatul naan de xanaa nekkatul sago de yow yonent yàlla ñu ngi lay lentul yàlla nga gaa nga gaar ñu loolu yàlla mu mu xetale ñu de yonent sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko jox leen ma ndox ñu jox ko ndox mu jàng bàyyi mu ne solo ko def hadis bi xamul lu mu jàng bàyyi mu ne mu ngay nëbb karaama bi mënoon na tëb rek ndox yi balli ci loxoom waaye dafa laa ñu jox ko ndox ndax mu dalal xel yi de biñ ko joxee dara ci ndox mu dugal ci baaraamam yi te di jàng lu ko soob solo ko tab xadis bi xadis bi xamul lu mu jàng sallallahu alayhi wa sallam mu daa di bës ay loxom bi mu bësee loxo bi rek ndox mi ball ba gën a weesu géej de ball di ball di ball di ball di ball bay war a ngaan kenn mës sa gis lu mel noonu de waaye mu ne ndox muy ballee ci doj kéemteen la kaawteef la yonent yàlla Muusa yàlla jagaleloon na ko loolu ci yatam wa de waaw mu dóor waaw doj mu ball fukk saw ne ñaar da nga wax bani israila fukki giir la woon ak ñaar giir gu nekk ak sa robine waaw ci lañ daan rootee de waaw yaatu yaat de waaye loolu lu yéemale de bàyyi mu ne ci àll bi sax waa ci tukki booy xool wala sax ma teg ci ci télé yi ñuy seetaan film yi da gis ay doj yoo xam ne waaw dafay sotti ndox dañuy xam ne jotu ñoo tukki de caméra bi di leen ko wan de waaye mu ne ndox muy ball ci teen ak doj xam nañ ko waaye ndox muy ball ci diggante yàq yàpp ak ak deret waaw ak sidit amul kenn ku mës am teranga boobu ci yàlla ku ma yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi mu ne ka nabiin dégg nga miyaayin de saara darun bi lam si midi la si jaali de loolu mooy lan waaw gàttab umu maabat ba bu la neexee nga ne waaw ba mu nekkee waaw ci laytaayu ndeyam bañ yóbboon ko alimatu saadiya mu yóbboon ko ca waaw luuma ba bañ jël waaw mbaamu yooyu moomu kooku moom waxuma loxo bi waaye jëmam ji tar ji la de boobu boobu jublu ci bii waaye mën nañ koo dugal fii de waaye li ci bàyyi na mu fii ci dégg dëgg mooy mooy ñi nga xam ne waaw gutt bokk na ca gàtt bu mu maabat ba nekkee ci gàddaay ga gàddaay Makka jëm Medina xéeféer yi kenn xamul fu yonent bi nekk sallallahu alayhi wa boo xamee ne gaarul nañ ko toog nañ iblis ñëw bokk ca mbooloo mu seytaane moomu moom mooy jëmmi seytaane de Abu Jahl lañ ci woon ak ñeneen de Abul Buxturi yi waaw ak noonu yàlla yi de ñu ne dañu rey yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ñu ne oto bi ëpp na doole xeexee nañ ko nu nekk mënuñ koo mënuñ mënuñ koo xeex mënuñ koo lor de léegi nag mi ngi jël seen doom yi waaw Hamza ibn Abdul Muttalib jébbalu na da nga warul xattaab moom waxi noppi moom ñeen fukkeel jullit yi de waa gén génde yàlla bi di xamsatu ak ñeneen de ñu ne ni moom ëpp na doole de waa ñu ne nañ ko rey nag ndax dafay julli ji fajar te buy julli ji moom rek mooy julli kenn du moom nañ ko bett ñongaan ko de bi loolu amee yàlla jabal jibril moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yëm bi ka la ka fa lu isbituka aw yuqtuluka o yu o yuxrijuka wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayru maakiriin de bul fanaan sa borom nee na bul fanaan makka tey de waa jox na la ndigal de na nga gàddaay dem madina de ñoom fi ñu toogoon doon pexel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yebal nelaw de yàlla man ñëpp moo man lépp de waa mu nelaw la leen de ñu daal di nelaw de waa yonent bi ñëw romb leen fekk leen fi ñu nekk mu jàng sarar yu saaru yaasin fa si baax seen am daf li ko gisoo sànni ko ci seen njañ yi waaw ak seen bakkan ak seen dënd ba mu fees ña ngay nelaw di xërëng de nekk ci seen digg guddi mu jéggi leen de ak jëmam ju tedd yooyu dem julli fajar wal leen gannaaw de waaw gaddaay dem Medina de gannaaw ba nga xamee ne dénk na Seydina Aliyu li mu ko dénk foofu buñ ci duggaayee dafay gën a sori de waaye li ma bëgg a wax mooy lan bi yonent bi gàddaayee yéeféeri Màkka yi toog nañ lu yàgg xamuñ fi yonent bi nekk de sallallahu alayhi wasallam ay fan de li gën a métti yaram bàyyi mu ne lu ko lu ko lu ko lu ko défier de waaw mooy dañ kumpa lu ko dañ loo kumpa te xamu ci pexe de waaw ñu nekk ci loolu de yàlla natt leen ci lu diir bu yàgg ci ay fan mu jigi daal yàlla ci dogalam benn jinne moo naaw romb màkka di wax ci kàddu ñëpp di dégg loolu yàlla da koo mayoon ci jamono yooyu de waaw mu naan jasallahu rabbun naasi xayran muhammada rafiqayni xallaahu xaymata umu maabade yàlla na yàlla fay ñaari way àndaal yooyu nga xam ne waaw ña nga ca xaymatu waaw umu maabade ci la waa màkk xamee ne yonentu mu nga xaymatu umu maabad ci la waa màkk xamee ne waaw ma yasriba madina la jëm de madina dafa bëri ay tur yasriba ci turam yi bokk waaw madinatu munawwara yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ko tuddee de waaw taaba ci tur yi tuuba waaw ci tur yi nee nañu am na fanweeri tur ak lu teg wala ko ëpp loo xam ne ci tur di Madina la lu bokk de sallallahu alayhi wa sallam ana a wax yonentu sallallahu alayhi bi mu jaaree ci xaymatu ummu maabat dafa fekk ñu nekk ci bekkoor de waaw mu daal di ñëw da ñu jox ko benn béy mu daal di jël raay ko raay mu suur ci saasi moom mu mu jël ko teg ko ci ween yi waaw mu fees dell de ñu ratta ratta naan ba gàtt gi naan ba mu doyal waaw ñu daal di rey gàtt ñam àndoon lekk dëkk ba yëpp lekk mu leen nag jël leen seen nii ngeen di ci lekk di ci ci lele di ci lekk di ci lele de waaw ci lañ nekkoon di ci lekk di ci lele ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gédde at génn àddina yàpp woowu mënta ci mës ta jeex de mës ta nëpp mës ta primé di yàqu de bu buñ buggee njël rek dañuy dagg rek muy muy fees rek waaw du wàññeeku day xanaa day yokku de waaw ba ci xilaafa ak sidna Abubakar Siddiq toog na fukki at toog na ñaari at ak juróom benn weer na ñaari yoo xam ne ni yàpp woo jeexut de ak yeneen kaawteef yoo xam ne yontu defoon na ko ci gëtt ñim daan may gëtt séet ak yeneen yu bëri yu mu daan def ci ay kaawteef amul ci benn bu ma sa taxawal de déglu lan moo ko taxawal de ci xilaafaak Omar ibn Xataab nga xam ne moom toog na ci xilaafaam moom it ay ati at waaw ëpp na mat na fukki at ala radiyallahu anhu mu ñu koy woyal ba ci xilaafaak Ousmane ibn Affan moom it romb na fukki at de waaye bi ñu rayee Ousmane ibn Affan keroog lañ gëj a gis barkeeb waaw lépp lu yonent bi mos a laal wala lu mu def ci kaawte bi de muy wane nag uutee baaxut rawatina ci xeetu yoon sallallahu alayhi de ŋaayoo baaxut xuloo baaxut tasaaroo baaxul def seen xol àddina nekk ca baaxul foo fekk ñuy def loolu rek barke du feeñ ci ñoom de yàlla ñu ci yàlla musal yonent boobu sallallahu alayhi wasallam laal gim laal waaw jur jooju ci ay weenam yaramam rek moo ko surloo de sallallahu alayhi wasallam de minu ka fun أروة ألوفا ظما من إناء من دون ما إقلال ده minu ba tey bokk na ci gaawteef yi bàyyi taggee yonent bi sallallahu alayhi wa mooy waa këfun tenk tenkam boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne da nga arwat ulufan mooy ba mu njëkkee woon sànq misaal maa ngi nii da baytu baa ngi da nga xam ne daf ko ballal ay ndox da ñu naan xare ba yëpp naan matoon nañ junne de ñoom ñëpp naan waa ñuy sol seenu mbuus bay fees ñii di ci sangu bàyyi ne ndox moom bu ma ko amoon du ma ko sangoo de sallallahu alayhi wa sallam min inaayin min duuni maa iklaarin de min inaayin ci laala moom ndab la min duuni maa iklaarin ci lu dang néewal de ñëpp a bëri la amoon ndox de yarhamukallah shabian min saayi ulufin walaw lam walaw min xeyri taa adu kalimaali de ba tey wal inaaqu astaxnahu minhu wala amri qul allah laa da walaaki rijaal yi de ba tey sal aba harin muzawadan bal sal muqmat tuflan an almutaari de kooku mooy kan mooy yonent ay junnee junnee nit ba tey saa mooy lu tolloog mudd yonent bi sallallahu alayhi wa daan nattee ay lekkam de mooy mooy dugub yeeg mboq de waaw moom joxe na ci loo xam ne ay junne junne yi nit mujj nañ moom taa sallallahu alayhi wa sallam de <coughs> wastaxnaw ñoom ñëpp doyal nañ bii ci moom da nga waaw wala amri nag maa ngi gën ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne nii moom mooy moom mooy ki nga xam ne daawlaaka rijaali mooy nga xam ne waaw lu jiitu loolu mooy sangi góor yi waaye mooy du dañ mukk di nekk sangi góor yi nga xam ne ñooy góor yi way yi ak way mujj de kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa la ci kaawteef yi nga xam ne bàyyi taggee na ko yonent bi sallallahu alayhi wa naala nasran min jaridin ya yusri kulla nisaali de kooku moo yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa minha bi qalilin wa diinu zu itqaalin waaw baadama ay aynaat naxiirun bi aamin xorosat fii min yadi zalaali de gannaaw boo xamee ne wax na ci xare badar ak la ca xew ci kawteef yëpp waaw mu indi xisa salmaanu farisi ñu tëjee foofu ñu continuer si kere balaa ñuy julli fajar de lan la wax ci salmaanul farisi salmaanul farisi dafa taxaw ci garabu tàndarma dégg ñuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de gaawteef yi mu def ak gàddaay gi mu gàddaayee màkka jëm si na rek mu daal di lox daal di daanu moom la dégg bu séeri di wax ne afalaa yaazuruna salmaana ba baytee jeex ne mojaa duñ jox ngànt salmaan lama ay nga axratul arwatul mooy lox wa de bi mu gisee ñuy wax yonent bi mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ba loxee ci garab ga daanu de bi nga xamee ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw na nag yonent bi dem di julli ji néew benn jëmmi jamono mu topp ko de yonent bi xam ne mu ñëw jox yonent bi sarax yonent bi ne kon du ma lekk sarax mu ñëw jox ko waaw addiya yéene ko yonent bi damay lekk addiya mu xam ne boobu mandarga yi ñu ko waxoon la ci yonent yàlla mu Muhammad wala yonent yàlla a feeñ mu mujj jamono bu yonent yàlla moom sallallahu alayhi ne nag bëggoon naa xam gis tampon yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu mooy beneen kawte nga xam ne moo doon a dëggal mu tëg jamono de mu topp ko yonent yaa ngi dem di julli julli ji benn néew yonent bi dafay xam li ci xaatir li ci xol ak li nga wax li nga waxut de ak lu weesoo ak lu ñew ak lu tew lu tew de mu top gar yoon xamne wa ne tampon li ko jëm mu woo ko mu ñew yoon bi nako salman mu nako ko mu nako ñewal mu ñëw rek yoon bi yëkkati jokkaram gi tëdd gi ci gannaaw ndigili mu ko rek daanu xam de waaw gis na kaw tew rek ne moom fay tuub de mu ne nak mom jaam la yoon ne nako demal gisa sang nga ko mu mu goral la de bim ñewé sakku ci mom mu goral ko mu nako bala ma lay nangul ne gor nga da nga ma jëmbatal ñett téeméeri tàndarma de da nga ma jox nangami ci wurus de mu ñëw wax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saaba yi ne indi leen ma waa jiw de ñu indil ko jiw boo xam ne pour mu mën a jëmbat tàndarma de ñu topp ko sallallahu alayhi wa sallam jox ko jëmbat jiw ya muy jëmbat jëmbat ñetti téeméeri tàndarma waaw yu manqué benn si ndeke sidna Omar allahu akbar allahu akbar moom ñëw na si jëmbat tàndarma bu ñu ko jëmbatee dafay def du yàgg ay at soog a soog a meññi de waaw sangam ba da ko doon lottuloo rek loot bëgg a lottuloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu baax bi loolu amee nag matulaat rek tàndarma ya waaw saaba yëpp bég kontaan yonent bi génn seeti tool yi de topp ànd ak saaba yi ak seen mbégte ak seen sant yàlla de bi ñëwee yonent bi xool gis ne am na benn garab bi tàndarma boo xam ne nii moom jëmbatoon nañ ko waaye meññut mu ne moja garab gi du ko dal de moom xam ne ne du jëmbat lu lu jëmbuwul lu sambuwut de bëgg ba bàyyi mu ne Abubakar Umar ree ne ko xaw moon da ngay def xar baax dama foogoon da ngay liggéey rek ma di dimbale waaye xaw moon da ngay def xar baax yonent bi buddi ko waaw jëmbataat ko mu sax ci saasi de sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di watt tàndarma yi nag waaw dem ci sangam nag mu ne ko demal ci sa sang nga wax ko ne ko waaw tàndarma gi mat na de sa nga jël nen ne saaba yi nañu ma may ko am wurus na ma may ñu ñu ko lu toll nii nenu tàndarma yonent bi laal kooku loxoom bu tedd bi jox ko ndigal daal di oo Salmaan ne ko demal nga fay sa sang de mu ne ko lii lu tuuti lii ak li may laaj ci peese kilo kilo or mu ne ko demal rek nga fay laa la wax de maanaam toppal sama ndigal mu daal di dem ne ko tàndarma yi na sa wurus laa ñëw pour fay la mu laaj ko muy laal rek muy muy tolloog li soxla mu xëcc ci li soxla yëpp te wàññiwu dara ci la yoon di sallallahu alayhi wasallam waxoon ak la mu ko joxoon de sangam de ko demal nag fi ne nii gore nga rek seulement daal di gore de kawteef loolu moom la bàyyi di tagg fii di melal waa ne suma salmaan topp salmaan ak ma la matal na diina diina ji mi naa ci moom bi xalin ci lu néew mooy rusu néew woowu de waaw wa diinu diina ji a baadama yaanat gannaaw boo xamee ne meññ na naxiilun waaw tàndarma bi amin ci at de te du a du mbaaxam de waaw daan na ëpp loolu de xarasat fii min yedi dal aali de ñu ko waaw daal di koy eh, jëmbatee ci loxo ki nga xam ne mooy aju kawe ji mooy yonent yàlla mu kawe moo ko gën a kawel de allahuma salli ala sayyidina muhammadin il fatih lima xuliqa wal xaatimi lima سبق ناصر الأقوى الأقوى الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى